lay lay baax na jàlleno lay lay la law maam bay lay baax na sidina limaamu laay yaa man yuridu ginaani lay yaskurwa waya limaamam njabootam sang yéena garaway wala ngeen ku kaway dawai njabot njaboot ga mu am firdaus mo di sa peey way leen ka mo jara ma am baylay lay baax ah, appel bi re tawfiq ra ak taysir rek lañ ci wax da appel mom seyna limam mom maam lu dafa dafa dafa dafa lo xamanteni mom manam lo xamanteni mom mm, ñepp dal ñepp koy appel waaw te appel bi moom dafa def nañ moom lu taw féex la waaw loo xamante ni daal lu barkeel la loo xamante ni daal loo xamante ni moom loo si def moom sëy naa limaam daal moo la koy fay loolu daal xam nañ si daal si appel bi loolu non affaire yi kay loolu loolu moo ñu war ndax gani moom saay dañoo daa dañoo war a ñëw gis xanaa appel bi ni mu demee gis berne yi gis lépp loo xamante ni maanaam moom la sëy naa limaam laa di woote muy jaamu yàlla ak ak joxe lekk ak loolu lépp loo xamante ne daal maanaam loolu la jaamu yàlla di woote daal loolu lool daal lañ la ñuy def si appel incha allahu rabbi. waaw bisimilah rahmaani rahiim ginaa ba nu sant yàlla julli ci maam Baye lay alayhi salaam ñu weexoon démb ñuulaat fii ci saw bu tey ñu gën ci mbindeef waaw te bis bi nag wax dëgg yàlla day bis bu doy ci ñun di bés bu màgg ci ñun ndax Seydina Limaamu alayhi salaam wootewul leen ajibo dan hayya lahi ya masar saral insi wal jinni amin rasulullah ilaykum nit ak jinne la wo di wo woowul jëmale ci bopam dafa ni luma am ñu bok lu ngeen am gi jël leen loolu al imam Limaamu woote al imam nak kuy wajur mam ko mo mëndooy waaw mam Alassane ciow mo jur al imam alayhi salam kon nag bis bi nii ñun dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di ci am mbégte bu rëy a rëy rëy daal laay maxtaar ndax boo leen gisee ñii mii rek lii ay jaam yàlla rek ñoo ko moom ndax Seydina Limaamu nit bu daan jóge ci dëkk ñëw ci dëkk bi sax même boo amul foo dal sax bu day jël kurusam jox la boo demee nga jox way juróom bu jigéen kurus yi boo ko joxee way juróom rek boo dina xam ne kan ah kii gan la ci dëkk bi Seydina Limaamu moo ko fi yabal kon bis bii daal wax dëgg yàlla dañ ciy am contentement bu baax a baax a baax aw man daal wax dëgg yàlla xob sedd daal doy na ñaan xobu tàng doy na ñaan gan yi nag ñuy commencé di ñëw yoor yoor bi jeex na nii gan yi la ñuy xaar rek ñu teral leen ñu bokk ak ñoom xéewal gi rek daal laay maxtaar